euh, ce qu'on a, en tout cas, notre slogan pour mieux booster, en tout cas, les jeunes, c'est une ASC, un projet. <laughs> Hein? Parce que projet Gaga Ambagam, ici, de, euh, beaucoup de, beaucoup de, de, de, points positifs. <laughs> En tout cas, nos développement faits, euh, fait commune Mm -hmm. mm. Monsieur le tëjëk avant d'abord euh, fan la fi tëjëk kàbbu nga aussi puisque nanaam wàllu jeunesse nanaam côté réwe nanaam aussi côté santé éducation et transport monsieur le maire wàllu aqooq xooxooxe njega jafe-jafe to i nanga aaye wiin na ngara a na mbubu oxtaak ando xooxooxe to kam a ceg xooxooxe naaga sonna euh, encore kam euh, i mbaxtaan kam émission encore presque xooxoox we den presque na mbalaqel to i nga'e en Europe ak xooq moƴu développement ak xooq moƴu jigma doole xa waralu sénégal waag mo lay xaye mi jarma ɓeer fop merke wala sortant wala ando naye ngara fop mm, presque a qooq daal den mina wetandana den daal xooxoowe nangam o coté laga daal bug am jem o lay taaga eh, culture fene te refit na cosaan in qooqale cosaan cosaano no saate fe te ref qooqale eh, Euh, maraîchère culture maraîchère te ref xoox hivernal euh, kene moom c'est un de nos axes euh, prioritaires de d'intervention non seulement avant kaaga fexey bo fo jëmale na gagné a fo jëmale na gagné a lanqe i mbexey bo te war a waagu euh, arrêter la dégradation des des des, des sols euh, ça c'est le premier élément mbexey également boo euh, jeg un circuit fa andoona parce que qooq aussi o jegangee ax paax jegiro engrais waagiro waagiro ret euh, mbaamir résultat xana jafeñ kaaga c'est un point extrêmement important no projet in mais pour xoox il faut ko jeg lang to lang ke eh, ne te na eh, no commune ne a doya taxu bo eh, ino no slogan campagne in ten refu ngor gore laya xome depuis 35 ans in way no parti socialiste in way mbiya ke i mbaag na no fogole Euh, mais njub jub aussi parce que onaga fiya politique mugratona xan fiyana nuun kene xan fi kaga mais kaga wolof ten law ye euh, digaate yakamti kula gërëm la mhm. euh, kaga aussi refe refe refe affaire in ke ke donoxna ten ten refu calel kaga i andu hmm, no kaga i ndime mhm. no kaga i ndefu no kaga i continuer ka donc lanqe aussi xan im mbexey sauvegarder lanke bo en tout cas wiin we mbago njeg mede ngen na wago jeg mede ngooxa ke moƴna doy waar teen ko ga'a lotissement fa andoona yee jekkee réserve pour des infrastructures communautaires écoles infrastructures sportives culturelles et cetera et cetera ça également euh, xan i njalteen euh, mayu euh, avoir bon circuit de mise à disposition engrais pour booster davantage élevage fait aussi euh, no qooqale fogu euh, ça également i njega teen projet surtout dans le cadre de la coopération décentralisée kaaga fop xana waago euh, waro waro jalel parce que aussi ken ken laya rek commune Fimela a fela a fela jalel a fela jalel parce que yaaje yaajoode trop mhm. mais a maya nag particularité en terme de problème xaye ndiiga fadanga pour o ret simal jafe-jafe yo hmm, aussi les voies de communication kaaga aussi c'est un axe prioritaire dans notre dans notre dans notre projet de de de société en somme ke i na daal ten fu avoir une commune intelligente parce que o nga aussi ke moƴna jeg solo c'est la formation c'est la formation to ka i mbug aujourd'hui euh, à partir de la case des tout petits, à partir de la préscolaire, euh, du préscolaire du moins, à partir de, de, de, du cycle primaire, il suivra en tout cas euh, les, les enfants, beau en tout cas des, des formations euh, professionnelles euh, diplômantes. On a beaucoup aujourd'hui de, de jeunes qui sont un peu au niveau, très organisés d'ailleurs, hein, euh, au niveau des universités. Université Hassan Sek euh, de, de Ziguinchor, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Université de Bambé, l'Université de Dakar, mmh. qu'on reçoit euh, à longueur d'année pour leur donner des subventions à titre personnel, des appuis, des aides à titre personnel. Mais Kaimboge, Awaga Waro, organisé, à part Bodeno, euh, des des des des des des en ah, somme daal ke andoona yee ten xaalu in dans la commune la ke andoona yee fop mbogun secteur fu refna fata ga ten xooxum secteur fu refna aussi a narange eh, waxtaan tel wa ndefna no secteur fa a ngar a lay ke refna ɗom den xara mbugu nama mbugtun i yoonandoor mbiyin i mbiyangaan bo pare i mbi évaluation o ande Eh, kenn ke ken layaten refu ye o kiin moom o nanga juuma fexeyi ɓisloox wiin mm-hmm. ken ken ten refu en tout cas kena ref ka notre exercice de gestion mm-hmm. donc de de la commune e d'après en wolof euh, mbokk yi ñoo ngi fii ci Samba Dia mm, dëkk bu tëdd euh, Samba doon aussi bokk ci commune la ñu fekk fii euh, ka nga xamante ne moom mooy candidat soxla mairie Fimela xanaa Euh, képp koo xamante ne soxla nga doomu dëkk ba nga mais avant d'abord am na foo xamante ne yaa nga daan liggéey foofu am loo doon defalante ak say am di jàmm dëkk ba ak jeunesse ba ak santé ba ak lépp mais balaa loolee ñu bàyyi ko mu présenté mooy kan ñu door a ñëw ci li nga mooy laajte. salaamaaleykum. jërëjëf euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax di di leen sant ci déplacement bi man maa ngi tudd du jox ñu gën ma xam ci turu Doudou Diokh euh, fii laa juddoo Samba Dia fii laa defee suma cycle primaire. suma cycle secondaire maa ngi ko defee Dakar euh, bi ma ci paree laa def ay formation professionnelle ci wàllu ndox ak euh, assainissement bi ci mujj maa ngi ko def ci institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement bu bu Ouagadougou euh, ci suma cursus professionnel 89 ba léegi maa ngi ci ministère hydraulique ñu ko doon wax léegi ñu koy wax ministère o et assainissement ci service bu ñuy wax office des forages ruraux moom may service bi yor euh, ndox yi ci dëkku kaw yi man maa nekk directeur des des travaux lépp luy liggéey euh, man maa ko saytu ci ci OFOR donc loolu mooy suma parcours euh, professionnel parcours scolaire académique et professionnel ci wàllu politique également maa ngi milité depuis bi ma commencé milité ba léegi ci partie socialiste Euh, je me souviens que 86 bi may def première euh, au lycée la njëkk jënd sama carte boobu léegi également man maa ngi ci partie socialiste man maa nekkoon euh, nekk naa secretaire politique section FIMLA pendant plus de vingt ans léegi man maa yor section FIMLA loolu moo tax ba ci élection locale yi municipale yi man ma nekk candidat parti socialiste pour briguer euh, mairie Fimela. la y a une coalition euh, mun naa wax ne y une coalition parce que effectivement euh, parti socialiste moo joxe mandat ak caution pour ñu am euh, ñu am euh, suñu liste. waaye boo seetloo élection locale dafa bëri particularité. Mhm. parce que c'est local. gis-gis yi mooy déterminé. Mhm. Euh, choix yi ba tax na euh, am na ay parti yoo xam ne ñëw nañu euh, ànd ak ñun ci ci liggéey boobu pour ñu mën a briguer en tout cas suffrage suñu concitoyens <laughs> monsieur le maire jox Doudou jox ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yaakaar naa nag monsieur le maire xam nañ ne Fimela yaatu na yaatuwut waaye aussi am na ab koom-koom bu fi nekk waaye gis-gis. yow gis nañ fi nga liggéey yàgg ngay jàppale jàppalanteeg ña nga xamante say mbokk lañ say am di jàmm tey nag ñu bëgg laa laaj lan mu la motiver ana loo gis lu manqué wala loo xamante ne war na mun a am amut wala doxalin moo tax eh, monsieur le maire posé candidat pour doon eh, meex de Fimela ak lan nga ñuy indil puisque aussi parfois booy dem eh, si dëkk dëkkaan yi dañuy tànn. ñi nga faral la wala loolu côté boobu aussi bëgg nañ ci détail bu baax a baax ana lan moo tax daal nga posé candidat pour jël mairie fi mu la. jërëjëf posé candidat bi dafa mujj parce que politique ngëm-ngëm la politique niñ ko tuddee mooy euh, defar sa réew. defar sa gox. defar fi nga dëkk. conviction boobu la ñu am moo tax ñu dugg ci parti socialiste di partager également les valeurs les principes euh, du parti socialiste loolu moo ñu ci denc boobu ba ba léegi. ñu xam nga politique nag boo koy def aussi il faut que nga am courage ça c'est ça le premier euh, élément ah euh, deuxième euh, élément bi mooy bu fekkee yaa ngi def politique ñett moo mën nekk booy def politique di dugalanteeg nit ñi di di di jëflanteeg nit ñi li nga xam ne yaa ngi koy gis mhm. mu nekk jafe-jafe ci askan bi soo su la ko yàlla mën loo régler da nga ko war a régler ci sa ci sa ci sa bopp doole bopp mbala ci sa ay doole àndandoo mbala ci sa ay pexe ak euh, ak ñeneen. noonu la defee politique. ñaareel bi stop mooy euh, euh, li nga xam ne ñëpp ñoo ko moom nga gis ne niñ ko war a saytoo saytoo wuñ ko noonu. mbala nga gis ne potentialité yi nga wax ci gox bi nga dëkk niñ ko niñ ko dimension bi mu am ñu war ko saytoo noonu saytoo wuñ ko noonu loolu moo tax bu ñuy briguer mandat conseil municipal pour mën a ànd ak ñi nga xam ne ñun ñoo bokk gis-gis euh, pour mën a li ñëpp bokk ñu fexe ba mu yegg ci askan yooyu yegg ci kuréel yooyu leneen li également mooy li nga xam ne état immanquablement moo ko war a def mais war na am ay jéego yoo xam ne war na jóge ci commune bi dem ci ci ci ci ci pour pour ñu régler le problème yooyu. Mhm. parce que aujourd'hui boo seetloo commune nag affaire bu sérieux la fi mu nekk nii. Ah parce que état bu demee ba summeku ci ay domaine de compétence lu dem ba ci juróom-ñeent su ma juumul lii jox delloo naa ko askan bi mais lu lu lu sérieux la. delloo naa ko askan bi ah. pas delloo naa ko diw mbala delloo naa ko maire delloo naa ko askan bi kon lépp loo ciy def na ci askan bi bo na ci askan bi bokk déjà tànn des ressources humaines de qualité hmm? di fexe ba nga xam ne lépp looy def inclusivité nga ciy jiital ñëpp xam ko dugalante ci waxtaan ci ba am ba am jubluwaay rax ci dolli li nga xam ne potentialité la lii buñ ko buñ ko toggee tuuti rek mu indi koom-koom ñu ñu ñu ñu defee ko noonu mais loolu yëpp bu amee nag ba ñu def ko ba pare am na lu tubaab di wax redevabilité da ngay delluwaat ci askan bi comme dellu woon nga ci ñoom. bi nga soxlaa ñu ne la am. nga delluwaat ci ñoom naka la ñuy liggéeyee budget bi ñu am ñu ne la nii ak nii nii lañ koy liggéeyee dem leen ngeen liggéey bu ngeen ko liggéeyee dellu si leen ci askan bi ngeen ñëw ne leen lii ak lii ak nii ak lii gis nañ ne loolu amu fi aussi leneen li mooy wax nga ko sànq euh, wax naa boo demee ci dëkk yu mag yi ñun suñu commune ni mu bindoo euh, charme la li tubaab di wax charme nga mën a ñëw fii am na partie boo xam ne jéeri la lépp a fi am élevage am na fi agriculture am na fi mbayum noor am na fi mbéyum euh, arboriculture am na fi mbayum nawet am na fi loolu déjà c'est c'est c'est vraiment un un un un charme nga am géej hôtel yaa ngi fii ak activités yi nga xam ne aju na ci yëpp touristes yi ñu ngi fi ñëw eh, ngay jàll géej di dem mu am lu bees loo xam ne buñ koy exploité mënuñu jaar fenn fu dul ci commune Fimela mooy le pétrole de Sangomar mais loolu lu lu lu sérieux la loo xam ne c'est des c'est moo tax ñu def ci suñu axe stratégique yi euh, le développement du capital humain donc loolu loolu yëpp dañ ko war a jël au sérieux mais loolu aussi pour nga jël ko mën a ñoŋal activité yooyu yëpp il faut que li ñuy wax les besoins euh, sociaux de base ñu régler ko lu mel ni ay ndox lu mel ni ay wér-gu-yaram yu mel ni ay yoon yoon yu mag yi état bi moo koy def mais il faut ñu gën a développer connectivité bi les pistes yi nga xam ne dafay kii cas bi may joxe toujours mooy cas wu simal simal bu tawee pour nga dem fa problème la aujourd'hui mar yi da ngay taxaw di seen mar mais pour nga dem fa aussi à un certain à une certaine heure doo fa mën a dem dangay jël gaal et cetera et loolu dañ ko war a def demlante beeg dëkk bi dikk la dem demlante beeg dëkk bi gën a gën a gën a yomb wàllu ndox wax naa ko sànq euh, ñun yàlla dafa def euh, ñu ñuy liggéey ci ndox donc euh, xam. jafe-jafe yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy jànkonteel surtout jigéen ñi moo tax ba ñuy développer ay projets ak peut-être ay partenaires mbala loo xam ne ci suñu mën-mëni bopp la pour may nit ñi ndox ci seen kër yi loolu dañ ko def également mais euh, politique aussi